marché bi bu jot bu ne loolu communauté bi moom moo ko moom communauté bi mooy sensibiliser mooy alal bi dafa nekk loolu dafa war di leeralal ñu tey suñu borom xam-xam ñu leen di leeralal loolu aussi ndax loolu ci liggéey bi la bokk loolu bokkoon na ci li mu ciy dolli di sant nag euh, xale yi bu baax a baax ci daara ji ñu xam ne ñoom ñoo ko taxawal di ko dajale ndax dama fàttaliku ay quatre vingt deux ba quatre vingt six dañ fi doon ñëw di jël xale yi di leen yóbbu Sénégal pour ñu xam si seen diine mooy xam xale yi waaye bu ñu demaa demee dañ daan am essai surtout ñun murit ji dañ daan am bu mag a mag ndax équipe bi ñu njëkk a yóbbu Sénégal pour ñu jàng alxuraan xale yi ba léegi dañuy wax ne jàngaluñ leen alxuraan Serigne Soji dañ leen doon exploité jàngaluñ leen dara euh, waaw ba waa Kër Baye Niass ñi fi jóge woon ñëpp dañoo mujj dem ci Kër Baye Niass ndax dañ leen jàngal alxuraan euh, kon bu ñu demee ba sëñ euh, Abdou Soumane Mbaye ak xale yi xawal lu mel nii xam ne jaratul ñu jël xale yi di leen yóbbu Sénégal ñu leen di jàngale fii alxuraan euh, mën a communiquer ak ñoom day nekk loo xam ne lu ñu rafetlu la loolu bokkoon na ci li xam ne dinaa ko sant bu baax a baax sëñ Abdou Soumane ñaar yooyu laa woon dama ci doon dolli di leen jéggalu nag ak ngeen baal baal jërëjëf dafa am mbokk mi laaj loo xam ne nee na xam ne ne sax enregistré na waaye ah, daf koy yitteel lool bëggoon ko mu laaj moo taxoon ma ne woon naa ko mujjee ba xam am na koy laaj lenn lu aju ci tam dafa am ku doon laaj bëggoon nga defa nga leeralal ko ngaañte yi nga xam ne moo nekk ci wax lu dul dëkk Euh, maanaam li nga xam ne moo ci nekk ci ay loraange lan moo tax mel na lislaam daf koo jël aayal ko lool wax lu dul lu dul dëkk mu ne bëggoon na ci daal ak gindi gu mat sëkk ndax xëy na jombul am na ñum ci bëgg a dool bi loolu nag xam naa bokkul ci tam waaye dafa am ko ko laaj rek doon ci bëgg dool bi ko euh, ok jërëjëf euh, sëñ Ablaye dafa amoon moo jël kàddu gi léegi waaw sëñ Ablaye Thiam jërëjëf yow ni nga waxee dëppoo naag sa taxawaay sa taxawaayu kuy boole kuy dox ci lépp loo xam ne day day yaatal njariñ sa taxawaay boobu sa waxin sa kàddu jëppoon ak euh, sa taxawaay li nga waxit dëgg la man dundu communauté laa wax waaye thème bi moo ma tënk thème bi moo ma tënk te ñun buñ dee def waxtaan ñu jox ñu tem dañuy tënku ca thème thème ba dañu am lu ñuy tuddee méthodologie mooy euh, tëral yi waxtaan woo xam ne ci thème bi rek moo ñuy tënk thème bi moo doonoon war war bu taalibe murid yi nekk ci bitti war a bennoo ak seen taxawaay nga xam ne foofu kon euh, daa am biir mbo mbooloo mu ñu mu ñu mu ñu mu ñu mu ñu mu ñu wax loo su ko fee waxoon naa ca njëlbéen ci may woon naa doomu aadama nit ñi tey garabam kon cadre yi dafa yaatu nee naa doomu aadama yi ci kaw suuf am na lu leen war war nañoo àndandoo ca loola ñi bokk gëm yàlla tënku ci diine jóge fa yàlla ñëpp am na lu leen boole ñi bokk diine lislaam ñëpp am na lu leen boole kon loola ba rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk diine lislaam ba noppi nag bokk jóge Sénégal bokk ñëw Amérique li ma waxoon ci biir mboolooy murid yi ci kuréelu xaside yi ak ndaw ñi ak mag ñi ak yeneen daayira yi kër yi ak yeneen ak yeneen nga xam ay mbooloo la ñu teqali waaye am na lenn lu boole loolu mooy balaa balaat ci kër yi diine yi fi nekk ci kii mag ña nekk Sénégal kenn ku nekk doon liggéeyal islam ci gisiin wa ko wa ko amee ba ñoom ñëpp seen liggéey yooyu tax lislaam saaro ci Sénégal ba yaatu ba seeni njaboot jógee fa ñëw fii euh, euh, réew ma boole leen diine ja boole leen barab biñ ñëw itam boolewaat leen ñu war fee bokk di dund kon fii am na communauté sénégalaise communauté islamique sénégalais islamique wala boog communauté islamique sénégalais xam nga fii dañuy wax euh, co islamique wala boog murid islamique communauté in America nga xam foofu dañoo tënk murit waaye bu la neexoon ne communauté islamique bu la bëggoon ne ñu ne sénégalais sénégalais islamique communauté in America kon sénégalais yi nga xam ne yëpp jullit di nekk ay sénégalais yëpp te nekk fii ci réew dëkk bi ab communauté lañu bu ñu neexee nag ne sénégalais yi ne ci Amérique ñëpp ab communauté sénégalais yi waxuma jullit yi sénégalais yi. kon jullit sénégalais yëpp ab communauté lañ jullit yépp da jógee senegal ab communauté lañ waaye mën nga ne murit yëpp ab communauté lañ tiijaan yëpp ay com ab communauté lañ laayeen yëpp ab communauté lañ waaye ay communauté yu ndondowaan lañ yoo xam ñoom ñëpp ñoo bokk benn communauté bu ñu bokk muy communauté sénégalaise waaye communauté de boobu nag moom it am na benn communauté mu gën a bokk nag mooy bopp l'islam ci boppam rek mooy jullit yi yëpp jullit yi nekk ci dëkk bi yëpp jullit yëpp ak fu ñu a bokk ak xeet bu a doon ñoom benn lu ko mën nañ waaye il faut que dimbalante gi ñu koy def ci ñu koy jaar ci ay cadre yu gën a yu gën a xat di ko yaatal di ko yaatal ni ñu nga xamee ne wax naa ko murid yëpp war a daje ci leen boole ci ca murid ga noonu la ju Sénégalais yi nekk ay jullit yëpp war a daje ci la leen boole ci lislaam ci réew ma waaye noonu lañu war a booloo ci la leen boole ci Sénégal ci réew ma ko tey dàqonte amu ci thème bi moo ñu tënk moo tax faw na lañ koy mën a euh, mi laaj waaw daa war a ci koo xam ne dafa am sëriñ maanaam jigéen ju am sëriñ daal mu ne ndax ndax am sëriñ ci boppam général amumiyan dafa war ci am nit ak tamit xususiyan dafa war ci jigéen joo xam ne dafa am jëkkër waa am sëriñ bu fekkee ne ci tasawuf la ñuy wax tasawuf te mooy école bi tënk la ëpp ci waa Sénégal nga xam ne sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom koo ci jël am na tarixa bu mbokk tijaan la ba murid la ba xaadir la ba layan la ñu ëpp ci waa Sénégal koo ci laaj am na fu mu bokk bu dee ci école boobu ñuy wax tasawuf képp koo xam ne tànn nga yow lay neex na nga tànn bokk ci mooy baa nga buñ ca bokk bu neexee nga bañ ca bokk am na ñu fa nekk te bokkuñ ci bu neexee buñ ci bokk waaye boo tànnee bokk ci daal ba dugg ci biir sarti tasawuf ak sarti tariqa boo ci bokkee mooy soo matul sëriñ rek war ngaa doon tànn soo matul sëriñ war ngaa doon tànn waaw mooy boo mënta wane yoon bi boo xamul yoon bi ba mën a jiitu war ngaa fekk ku xam yoon bi nga topp ci ginnaaw su fekkee yow xam nga yoon bi daal mën ngaa demal sa bopp nga xamne li la war lepp xamal nga ko sa bop man nga dox te kenn du la digal kenn du la tere ndax xam nga li nga wara xam mel nga li nga wara mel dund kep mo la dese su boobaa bu neex man nga baña man nga baña am sëriñ bu buy dund da bañ am sëriñ buy dund waye teewul nga wara a am kilifa sëriñ ak kilifa lu mu sëriñ mooy ki lay ci sa diine ak ci sa tarixa foofu mooy sa sëriñ sa kilifa nag mooy ki jiite mbooloo mi nga bokk mooy ki jiite mbooloo mi nga bokk ndax mbooloo it nag fokk ñu nosu am kilifa waaw kon boo mu sëriñ it war am war ngaa am kilifa boo dee murit boo xam ne li nga war a xam xam nga ko li nga war a mel mel nga ko ba gisoo ku la tane ku la ëpp xam-xam gisoo ko ci yoonu murid ku la ëpp pësteef gisoo ko fi ku la gëm Sëñ Tuubaa gisoo ku la gën a la gën a baax ñëpp yaa leen raw bu fekkee gis nga noonu nga mel soo jëm nga waaye su fekkee ci borom murid nga bokk nag ki jiite yoonu murid moom nga naan mooy Sëñ Tuubaa lu mu wax ca la yëpp war a ànd bu ñu tere moom la ñuy war loolu kon mooy tontu mooy daal koo xam ne man ngaa do ku matut sëriñ daal jëru nga jëru ngay doon taal ku doon taal ku doonagul sëriñ war ngaa doon taal ndax nga doon kenn ci ñaar yooyu bu ko jigéen sëriñ borom këram ak sëriñ bu benn mooy kii la nga doon soxnaam la leen tënk mooy contrat sëy dundoon nga bu yàgg te xamoo ko mbaa yilifu la te mën naa balaa ya. sëb dund jeex mu ngeen a teqale ko dootul ñu defee kon kooku sa borom kër la sa borom kër la boo xam ne yéen yéen boole mooy maanaam li war ci borom kër ak soxnaam ak li war soxna ak diggante bu borom kër mbirum diine nag meneen meneen mbir la moo xam eh, ne ñaar ñu ko bokk réew mën nañoo ànd maanaam ab jullit eh, bu mën naa yor ku mu bokkal lu diine ku diine ba juif su boobaa ku nekk day nekk ci diine ñu bokk doon ay jullit mën nañoo bokk seyt te duñ bokk tarixa góor gi mën naa doon murit soxnaam doon tijaan ba soxna si doon tijaan euh, góor gi nekk tijaan góor gi soxna si nekk murit ku nekk nekk ci ab tariqaam su ku ci nekk kala doy rek mooy doon sa mooy doon si sëy su boobaa sa relation taalibe ak sëriñ moo dox ci diggante ba waaye sa borom kër relation borom kër ak sëriñ ak soxnaam it moo tey dox comme ñaar yooyu bokkul loolu la jigéen par force bu dee sëy rek borom kër may doon sëriñam ndax borom kër mën na mën na ko bañ a am ak sëriñ bi léeg-léeg sax boo boo jigéen jay gën a kii ah léeg-léeg jigéen jay ma sëriñ bi gis naa fi ñoo xam ne seen i seen i soxnaa leen gën a sëriñ ba ñoo xam ne ñoo leen ñoo am ne sax seen jub lu ci bëri seen seen naa ci biir laaj yi waaye am na koy laaj ne lan euh, lan lañ jublu ci sëñ Tuubaa lañ yaakaar naa kon kon euh, mbokk yi buñ ñu ñu bàyyi sëñ bi yeggale ñetti laaj yooyu muy lan lañ jublu ci sëriñ Touba lañ yaakaar euh, beneen bi mooy ana teel am borom kër ndeem am na njariñ yan njariñ la am ci jamono bi ñaareel bi mooy euh, yan loraange moo nekk ci wax lu dul dëgg kon xam naa euh, bu noppee rek ñu may ko mu dal ji incha mu ngeen bëggee continuer waxtaan daara ji murtaax incha allah bismillah bismillahi rahmaani rahim ki laaj ne lan lañ jublu ci Serigne Touba lañ yaakaar wala wala waaw Serigne Touba lañ yaakaar mhm. liñ jublu de ñu koy wax xam li ñuy ñi nga xam ñu ngi koy wax te li ñuy wax ñu xam lu mu doon liñ ci jublu mooy ci tasawuf dafa am lu ñu tuddee wasila wasila mooy ki nga doxale ki nga jàpp ne ki nga doxale ci sa diggante ak sa boroom nga xam ne njub nga bàyyi ko ci suñ boroom moom nga yaakaar mu leeralal la ko ci moom nga yaakaar mu leere ci moom ndax jàpp nga ne tënku na ci njub googu tënku goo xam ne lépp lu wax baa mu jëf ko baa mu mel ko dëppoo naag njub googu te yow amoo capacité xamal sa bopp njub googu nga am confiance ak wóolu ci ne moom mi mat na la royukaay ci njub googu nga xam ne moom la yàlla eh, indi tam jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa eh, te suñu digganteeg moom yonent bi sallallahu alayhi am na distance jamono bu yàgg ak distance barab bu sori eh, fawu rek dañ lay jottali lay bàyyi ko ci dañ la koy jottali Euh, ba mu la ba ba mu gën a jege sa xel gën a jege sa sa sa xam gën a jege sa yëg nga door koo ngir nga man koo xam dala yombalal daal sa roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam moom def muy sa sa royukaay waaye noonu nga ko defee muy sa royukaay itam nga xam ci moom nga yaakaare xam njub di bàyyi ko ci suñu boroom noonu tam nga yaakaare ne moom jege na sunu boroom ba loo ñaan sunu boroom ci barkeem mbaa ci darajaam ba sunu boroom dana la ko may lum la ñaanal sunu boroom it sunu boroom dana ko nangu kooku la ñuy tuddee wasila ci ci tasawuf loolu nag aw déggin la ci biir diine lislaam yoo xam ne dafa am ñu ko déggee te waa tasawuf nag loolu lañ gëm moom ñi nga xam ñëpp ñoo tënku ci tasawuf ami sëriñ doon nekk ci tariqa ñoo ñëpp dañoo gëm dañoo gëm lii ma wax dañoo gëm wasila waa wasila mooy jëmm ji nga xam ne moom nga jàpp ne mooy sa royukaay ci diine ji njub ga nekkoon njub njubug yàlla di wàcc ci yonent bi sa sam ci moom nga yaakaar moom nga wóolu ne rafet nga ci moom njort ci ne njub googu euh, ca la tënku te moom xam nga ko xam nga ko xam nga lam daa def xam nga nam meloon yaa ngi koy gis mbaa yaa ngi koy dégg wala yu mel noonu nga yaakaar ne kon nga nga wóolu ci ne njub gi moom boo ko royee lépp lu mu wax mbaa mu def ko mbaa mu mel ko dëppoo naag njub boogee nga yaakaar nga am confiance ci loolu am confiance tam ci ne moom jege na boroomam ba lum la ñaanal suñu boroom mu may la ko mu nangu ko yow it loo ñaan suñu borom ci dara jaam mu may la ko kon loolu kon mooy boo nee yaak diw sangam lañ yaakaar mooy diw moomu laa am confiance ci ne mat na ma royukaay ci diine moom laa ko def moom laa def muy sama royukaay ci diine moom laa yaakaar it li ma yaakaar ci yàlla lépp ci njariñ it ci moom laa yaakaare mu jaare ci loolu mooy euh, wasila wasila nag mooy lépp lu lay jegeel sa boroom ci pas-pas ak i wax ak i jëf ak jëmm ju la mën a jokkale ak moom lépp mu ngi dugg ci biir wasila yàlla ngi wax ci alquran yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflihun waaw kon loolu lañ ci jublu boo daal sëñ Tuubaa lañ yaakaar daal mooy moom laa def muy sama royukaay ci diine te am naa confiance ci ne euh, dëppoo naag diine maanaam teg na tànkam ci sunna Yonent bi sallallahu ci zahir ak ci baatin du juyoog ndigalul yàlla ku ko roy roy nga yeneent bi ku ko topp topp nga Yonent bi loolu laa gëm ci moom te gëm naa ne ku jege yàlla la ko xam ne lum ni ñaan yàlla jam lum ñaan ñaanal yàlla ab jam yàlla nangu ñaan googa ku ñaan yàlla ci dara jamit it yàlla nangu ñaan googa te loolu nag lu sax la lu sax la ci diine bu dee royukaay fab jëmm def ko muy royukaay loolu euh, yonent bi yàlla wax na ci alxuraan ne kum fi rasulillahi iswatun xasana yonent bi yàlla bi seen royukaay la bu rafet royukaay boobu nag yàlla tënk ko ci jenn jëmm ndax lim na mbooloo ci alquran ba noppi daal ne ulaayika allazina hadahumullah fa bi hudahu ñooñu la yàlla jubal royal ci seen jub kon mu nga xam ne ko ñooñu ñëpp ku ci nekk mën nga ko roy kon mooy royukaay du jenn jëmm képp ku la raw man la ëppale la ak njub rek yow mat na la royukaay ba ba nga koy weesu kon lenn luy tënk royukaay ci ne kenn waru koo doon ku dul yonent bi loolu amul fenn moom kenn du roy nag ku roy yonent bi nag moom ku roy yonent bi moom kenn du ko roy waaye képp ku ko roy it warees na laa ku la doyloo mën na laa roy euh, li ñuy wax wasiila mooy koo xam ne lu mu la ñaanal yàlla yàlla nangu ko yooyu loo ñaan yàlla ci dara jaam itam yàlla nangu ko loolu itam lu sax la ci diine euh, ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi nit daana dikk yonent bi ne ko ñaanal ma ñaanal ma yàlla yonent bi ñaanal ko waaw euh, yàlla mi ngi wax ci alquran euh, wala annahum zalamu anfusahum jaa'uuka fastaghfiru llaaha fastaghfara lahum rasuulu llaahi wa ja'aluu llaaha tawwaaban rahiima jullit yi maanaam ñi tooñ seen bopp bu fekkoon ñëw nañ ci yonent bi ñaan sàkku ci moom mu ñaanal leen yàlla kon bu leen ñaanalee yàlla njégal yàlla njégal leen kon dem ci jëmm ju jaga gën a jege sa borom ngir mu ñaanal la sa borom loolu kon lu lu sax la yonent euh, yonent bi bi mu fi jógee sallallahu alayhi sallam am na at moo xam bekkoor daa amoon ñu war a def baaw naan manam julli ñaan yalla ngir mu taw sayyidina Omar moy khalifa ba ci jamono jamono jooju moom mo jiite julli yi julli baax na moo ko jiite waaye ba mu jullee ba noppi daa ñëw ci sayyidina Abbas ne ko ñaanal ñu yalla ndax ci sa daraja yi ci sa ci yonent bi yalla bi lañ daan lañ daan dem diko ñaan ngir mu ñaanal ñu yalla léegi nag gisuñu yonent bi yow yaay bayam bu ndaw moy am nga yaan nu ko gën a jege kon ñaanal ñu yalla nga xamni kon ñaan gogum ñaan lo abbas lolu ma ngay tawasul ci dara yeen di sallallahu alayhi wasallam ndax li tax muy ñaan lo abbas moy daf kunna natawassal bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa an natawassal bi ammi rasulillah tawassul rek ci abbas way bi ammi bi ammi rasulillah xam doon gi mu doon bàyyi yonent bi te omar ko jëk a ci ahlu sunna wal jamaa dañ naa Omar ko gën te mooy xalifa ba it di kilifa gi jiite julli gi itam waaye ba ñaan jotee tam gis ne képp gën a jege yonent bi dane yow ñaanal ñu yàlla eh, yax yaay bàyyi taxu yonent bi kon ma ngay tawasul ci darajay yonent bi sallallahu alayhi wa kon loolu kon lu sax la ci diine eh, am na ay boroomi xam-xam yoo xam ne tawassul ci jëf ju baax nangu nañ ko dem ci nit ku baax it mu ñaanal la yàlla nangu nañ ko lañ nanguwut mooy nit ku fi nekkatul ngay ñaan ci dara jaam loolu lañ loolu lañ dàq cheikhul islam ibnu taymiya ak salafiste yi ko gëm loolu lañu dàq ñoom tawassul boobu ñaan ci darajay diw sàngam loolu nag ñoom seen gis-gis la waaye teewul ñi ci sof ñëpp gis nañ ne loolu moom euh, xam nga ki ngay ñaanloo ku ne ci ci dara tax nga di ko ñaanloo waaw yonent bi nekkatu fi ngay ñaanloo Abbas Abbas moo gën a jege yonent kon ci dara yonent bi rek ci ngay ñaan ba tey ndax yonent bi tax ngay ñaanloo Abbas te yonent bi nekkatu fi kon dara jaam ci ngay tawassul rek waaw mu kon daal loolu la ñuy jublu ci Sëriñ Tuubaa lañu yaakaar léegi nag am na ñaari yëf yu mata ranyale moy lu ñuy tuddee sharia ak lu ñuy tuddee haqiqa xaqiqa mooy deug dëggi mbir mën mu démé sharia euh li li li ada li ada na mbir ma demee deug dëgg mooy ak lor ci yalla rek lay jog yalla rek ka mëna jariñ yàlla rek a mën a lor kon yàlla rekk la ñuy yaakaar mu jariñ ñu yàlla rek la ñuy ragal mu lor ñu man zanna xayrallah yuxni aw yadur fa zaaka fi daarayni zu kaddin wa dur ku yaakaar ne am na ku mën a jariñ am na ku fu njariñ di jóge fu dul ci yàlla mbaa mu yaakaar ne am na fu mbaa mu jot ne am na fu lor di jóge fu dul ci yàlla kooka ci njàqare ak coona ak lor ci lay dëkk ndax kooku wéetalut yàlla ndax yàlla rek kay dogal lépp lu am yàlla moo ko def loolu mooy xaqiiqa mooy dëgg dëgg na mbir ma tëddee waaye li aada mooy li yàlla def nag yàlla ni mu baaxoo jëflante ak jaam yi mooy lépp lu muy def da koy jaarale ci ay ci ay sabab loolu ñu dee charia ci ay sabab boo bëggee boo bëggee lekk boo bëggee suuf da ngay lekk soo bëggee màndi da ngay naan soo bëggee wér dangay faju soo bëggee am alal dangay liggéey loo ci bëgg te jaaroo ko ca na ko yàlla fa yàlla daan jaarale la nga daa def yàlla door a def dogal bi léegi doo ko am su ko fee nag buntu yooyu yàlla yi sàkk nga di war cee jaar ngir mu defal loolu ñu tuddee ay sabab sabab nag mooy li nga yaakaar ni soo ko defee yàlla defal la li nga bëgg léegi yow bi ngay liggéey dangaa yaakaar ne soo liggéeyee yàlla jox la bi ngay jàng danga yaakaar ne boo jàngee yàlla may la xam-xam kon njàng mi dañ koy yaakaar lan ak xam liggéey bi loo ci yaakaar ak am faj mi loo ci yaakaar ak wér pourtant de liggéey ak jàng ak faju lépp ay bindeef lañ hmm? te yaa ngi ko yaakaar ndegam nag yii dul ay jëmm ngay am yaa ngay def di ca di ca yaakaar rawat na loo xam ne jëmm la kon loolu mooy mooy mooy mooy mooy sariya mooy sabab mooy boo yaakaaree yàlla du tee ngay am beneen sabab booy jaar yaakaar ne ci lii ngay def ngir yàlla may la lee mooy boo yaakaaree yàlla nangu sa ñaan demal ci diw sa bo beugé yalla fajal sa adil yaakaar nga ni bo demé ci diw sa nga bu ñaané yalla yalla dana fajj faj kon yàlla mooy faj waaye diw ngam mi lay ñaanal sabab la manam lolu muy def non day tax yalla da koy lekkale ah dogalam kon lolu du bokale yaakar dara ne li yalla dana ci dana ko lekkale ko dogalam lolu du bokale kon yaakar suñ tubaab lañ yaakaar si Ahmad Tidiane yi lañ yaakaar wala keneen ci nti yàlla yi lañ yaakaar loolu du bokkaale loolu mooy nangu nga wàccuwaay bi yàlla jox jaam bi nangu nga ko te yaa nga cay jaare ngir bëgg am li yàlla dogal moo laaj bi ci topp mooy teel a am lan mooy njariñul teel a am borom kër ci jamono jii teel am borom kër day amee chat chat yi tax mu am jari da am na chat yu yo xam tax mu am jari nak yo xam bu ci amul mën na ñak njariñ ki teel am borom kër bu fekkee ne wajuram moko tanal borom kër ta tanal ko kumat borom kër manam kamuy tan depo ka wax ne nañ ko tànnal nañ ko tànn sa waajur mbaa sa kilifa tànnal la kooka muy loo xam ne ko teg ci rafet njort ak confiance yàlla dogal lañ yaakaar ci kooka nekk ca euh, te it yàlla dogal ki ñuy teel a tànnal boroom kër bëgg ki ñu ko tànnal topp ndigalul waajuram te kam tànn it kañ ko tànnal it mën a muñ mën a muñ su boobaa mën naa am ay njariñ yu bari ndaxte buñ ko bàyyee ba mu majeur xàmmeel boppam moom su boobaa lam bëgg lay xam lam bëgg man naa doog ci ne diw sàngam laa ma laa bëgg bu ma ko may du ma sëy te fekk diw sàngam moom du ko war a bëgg dégg nga diw du ko war a bëgg te moom bakkanam jiital na ko diw sangam gondi na ko topp na ko rek ne moom lay seyal dégg nga kooku bu fekkoon teeloon nañ ko may bero ko balaa àgg foofu kon du topp ku mbarta topp kon day ànd ak kam war a àndal kon dana aar nit dana aar nit ki ba du ànd ak ku mu wërta eh, dana ànd ba du daane kumur sa àndal eh, kon loolu mooy njariñ mooy dana ko aar ba du ànd ak kumbal sa àndal te bu àndee kam war a eh, kon su boobaa lañ yaakaar ci njariñi sëy danañ ko ca fekk insha allahu taala la ñuy ragal itam ci ay lor yu man bàyyi ko ci sëy bu jaarul yoon des na yaakaar ne dana ca mën a mucc kon daal dana ko aar musal ko dana ko tax jariñu dana ko fegal itam ay lor bu fekkee charte yi ma wax dajale ci mooy mooy ki ko tànnal nit ku ñor la ko xàmmee koo xam tànnal na ko kamata tànn te kooka it ñu fekk ca lañ ca doon yaakaar ba noppi mu nekk ku mën a muñ gis nga teel a sëy nit xale bu ndaw bu bu sëy te kañ ko jox mënta muñ moom it wax dëgg yàlla du ko yor ndaxte la muy bëgg xale ba du ko xamagul sax foofu ma la di ko mën xale bi nga xam ne ñoragul xamagul dara la waajay bëgg moom waa ji nga xam ne moom jamono ji mu kàlla xam àdduna la muy bëgg xale bi du ko managum du ko xamagum sax waxuma laa di ko managum il faut mu muñ nag ba ba xale bi màgg ba ràññee ba euh, ba xam la waa ji bëgg man koy su ko defee mu doog ca am la mu bëgg bu mënta muñ it ba tey euh, su boobaa kon teel a sëyi day jóor rek ak te yàlla bari ay borom kër mooy teqale ko lo tam ku su boobaa eh, ak ki lay doon daal teel gi it bu mu teel ba pit batay tey de bu teelee bopp du baax xale bu ñu ko teelee may ci at tu neewal neewal neewal néew nga xam ay cëram matagul mu tambali di am doom ak ëmb ka am doom dir bu gàtt day kàttanam lay jeex mu magat ñakku taram wér gu sax mën ko ñak loolu la mën na ko jural jafe-jafe dund ba mën naa bokk sax ci ñuy teel a faatu wala yàlla subilaay taala nga xam ne lu mu teel teel nañ nekk ba jëmm ji moom na mat na dëgër ba nga xam ne coono yi sëy du ko teel a gàllankoor waaw kon ay détails ci biir daal bu ñu wax rek ne teel a sëy baax na wala ñu ne teel a sëy bon na waaye day am ay conditions yoo xam bu ca dajee daal dana baax waaye bu ca ñàkkee mën naa indi ay lor kon bokk yooyu iya, iya, yëpp nañ ko ci kan. bàyyi xel laaj bi ci topp mooy wax lu dëgg lan mooy ay eh, loram ci jamono ji jamono ji ñu ngi dund jafe-jafe yu méttee méttee metti rawat na ci suñu réew mais di Sénégal ndax ñàkk wax dëgg wa ñàkk wax dëgg war la war nit ki soo ko waxee loo xam du dëgg yaa ngi koy wor moom yaa ngi koy nax soo ko naxee jëflante ba yàq daane nga ko màbbu nga sa jëflante moom ndaxte ci kàddu la sukkandiku maanaam koy jëflante ko ne ci kàddoom rek nga mën a sukkandiku lam la wax rek nga mën a jàpp gëm ko jëflante ci ak moom mbaa nga ñàkk ko gëm bañ a jëflante moom kon ci kàddu lañuy ñuy jàppee nit ci lañ koy nangoo waaye ci kàddu itam lañ koy bañee bu fekkee ne nit ki wax na kàddu goo xam ne du dëgg bañ gëm ko euh, jëflanteeg moom ca kàddu koy ba noppi waxul dëgg euh, dëgg maanaam fen day leer maanaam ñàkk wax dëgg day feeñ bu xasee feeñ nag lañ tabaxoon ca kaw lépp day daal di màbbaat kon day yàq ab diggante ñàkk wax dëgg day yàqu diggante day sooxeel ak jëflante day delloo ginnaaw ak société ñu bare ni fii ci réew mi di liggéey war a am luñ taxawal fee ci Sénégal ci ay projet waaye problème bi mooy nit ku wér kuy wax dëgg di def dëgg ku ñu mën a jëflanteel ba la ñuy diggeeg moom seq koog moom jaar yoon ba lam ca bëgg mu am ko ca moom it mu am ko ca moo të moo të loolu la muy jural nit ki mooy du du du gaaw a mën a toog Sénégal ndax day bëgg bala fay toog xëy na taxawal fa dara te amul ay keno yu mu sukkandiku ba taxawal dara loolu dana ko tardeel waaye dana tardeel it ñenn Sénégal te waroon a man te mënuñu waaye seenu ñàkk dëggu gàllankoor ba kenn wóoluwu leen kon ñàkk wax dëgg day dog war la war. Sina Bakar asit na asidq amaana wal kazibu xiyaana waaw li ci yées lépp nag mooy ñàkk wax dëgg jikkoy naa feq la waaw jikkoy naa feq la yonent bi saa sam nee na euh, euh, naa feq te mooy koo xam ne li muy wane bokkut li ne ci moom mooy nee na mooy koo xam bu waxee wax lu dul dëgg kon moo jiitu moo jikko jëkk ci jikkoy naa kuy wax lu dëgg rek kooku naa la te naa moom mooy nit ku bon koo xam ne dañ ko war a seppi ci société bi sànni ko mhm. ndax day yàq ab société mi ngi mel ne euh, gunóor buy yàq euh, dara mhm. yàq ay bant mbaa yàq ay ay meññet wala dara dañ koy seppi sànni mbaa mu yàq lépp waaw kon di koy naafeq la koo xam ne bu wax bu waxee wax lu dëgg bu buñ ko dénkee mu wor bu diggee du ko def te xam nga buñ ko dénkee mu wor ak bu buñ ko diggee mu kii lépp ba tey ci fen la bokk rek lee day wax fen yi fen yi wax li di fen yi jëf waaw ki wax na daal diggee na la def ko kon kooku ba tey wax na lu mu wax na lu dëgg ndax ba muy diggee danaa def kon bu deful waxul dëgg ki ñu dénk dañ ko wóolu ne dana ko wattu moom mu ne danaa ko wattu ñu jox ko ko wattu kon ba tey fen na rek waa kon jikko naa fekk yëpp mu ngi daje dellusiwaat ci fen fenn nag day yàqu day dogu bokk di yàq ak xaritoo di teg di ci wëlëre di toroxal nit di daane ab société di yàq économie di tasum réew waaw di tasum réew ndax nit fenn na ba jaxasee ay nit bañ xeex nit fenn ba yàq ak bokk nit fenn ba jaxase réew ñuy xeex kon fen daal li ci nekk ci ay lor bari na lool lool lool lool lool kon daal euh, nit nay teey ci ci nay teey ba lu muy wax mu fexe ba doon mu doon dëgg lu muy wax lu muy digee muy doon lu muy def lu ñu ko denkit mu am kóole rek sàmm ko waaye nit ki tam na góorgóorlu ba lu mu dégg lu mu dégg bala ko dëggal na ko gëstu ba am ay firnde ne lii dëgg la bu mu def lu mu dégg rek gëm ko nit it bala ngaa jëflante ak moom na ko gëstu ba xam ndax dëggu na wala déet nga door a jëflante ak moom ndax fi mu nekk nii kat wax lu dëgg moom daa yaatu lool lool lool ba gis ku dëgg moo gën a néew euh, moo gën a yomb gis ko ku ku ku ku dëgguwut mm-hmm. fenn nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na na ngeen sax ci dëgg te lu ngeen di def na ngeen ca dàkk ak dëgg bu ngeen dee wax na ngeen fexe ba xam ne lii ngeen di wax dëgg la bu ngeen di jëf na ngeen fexe ba xam ne lii ngeen di def dëgg la mooy jub na euh, kon ndax dëgg day taxa baax te baax day taxa tàbbi ajana nit dana dëggu daa wax dëgg di ko jëf di ko jikkawoo ba yàlla bind ne kii siddiq la mooy dëggalaa kon la dëggalaa kon mooy koo xam ne léppam dëgg la bu ko defee loolu muy daraja garaat boo xam ne bu yonent jàllee kookoo ci topp siddiq a ci topp ñi gën a kawe ci fa yàlla bu yonent yi jàllee siddiqiin yi moo ñu dëggal ñi ba yàlla nangu seen dëggal ñoo ñaa ci topp kon gis nga dëgg li mu yóbboo daraja ni mu yóbboo nit ci daraja ji kawe noonu <laughs> waaye ne wax lu dëgg nañ ko moytu ndax wax lu dëgg day tax a doon nit ku bon day taxa a kàccoore te kàccoore day tax a dem sawara nit dana wax lu dul dëgg di def lu dul dëgg ba yàlla bind na diw sàngam fenkat la kazaab la fenkat la su boobaa ñu euh, daa koy xam ne kii kat ma nga fa gën a suufe ci euh, darajay suufe ya kon dëgg moo yóbbu ba mu àgg fa gën a kawe waaye ñàkk wax dëgg koy daane ba mu àgg fa gën a suufe kon ay lorom daal bari na lool lool lool waaye li ci gën a fes rek mooy day gàllankoor ak jëflante di daane économie di euh, tas bokk di indi ay lor yo xamni yu dul jeex la di indi di ye fitna di jaxase nit dégg nga rambaaj gi moy wax lu deug rek kon bari na ay guerre yu am ak ay fitna yu am ci diggante ay fami mbaa ci diggante ay xarit mbaa diggante ay bokk yo xamni wax lu dul dëgg koy moo ko sos bokk kon ay loram bari na lool lool yàlla na ci yàlla musal Hmm. damay laaj. Mm. taalibe ak ab sëriñ. Mm. lan moo war ab sëriñ lan moo war ab taalibe ak it bu fekkee sëriñ bi taalibe bi deful lu sëriñ bi deful ko war ci taalibe taalibe a ngi def lan la taalibe mu war a dox la def digganteem sëriñam ak it bu fekkee taalibe it mi ngi nemmeeku sëriñam di jox ak yéen di def lu mu war a def te saa demee ci sëriñ bi sëriñ bi du ko digal te du ko te du ko tere diggante jokkalante bu ko jox na la ngay jox noppi naa te ba mu koy gisaa. daal boobu nan bu fekkee sëriñ xam nga li njëkk a war nit ki mooy bala ngaa bala ngaa def nit ki muy sëb sëriñ da koy njëkk seet ba matul sëriñ waxtabir rijaala qabla suhba wala tusaaxibhum ranaw daa raxba sëriñ bi nee na bala ngay ànd ak kenn di ko def sëriñ na nga ko gëstu gëstu mbiram ba am ci yow ba am ci moom lu la leer nañ bul ànd ak ab dof maanaam koo xam ne xamul dara moom xamul fu mu jëm xamul fu muy jëme nit jàngut yewwut jubut ko kenn ko sëriñ koo xam ne xamul fa mu jëm yow dëkk sàngam nga bëgg a dem dangaa bëgg ko la yóbbu kon koo xam ne xamul dëkk sàngam fu mu feete xamul yoon wa jaaru ca bul ànd ak moom bu ànd ak moom yaa réeral sa bopp ñaareel ba mooy bul ànd ak koo xam ne moom dofut moom xam na bu wóor xam na yeewu na euh, waaye daa daa bëgg jariñoo nit ñi daa bëgg a nit ki la bëgg a rek ta du la jariñ kum exploiter da lay kum nax kum nax ba not la di la jariñoo rek la soxla ko mooy zaarax ba neena na ku mel noonu te bul ànd ak mom waaw waxaatoon na ne itam wala sahib in arata ah, suhba za safahin aw hasadin aw raxba ñet ñi waxoon fi kenn la ci ak ci beuy ni moy ku iñaan ku iñaan nee na bul ànd moom ndax ku iñaan mooy koo xam ne yéenewul dara nit nga xam ne yow moom boo ànd ak moom it yow sag yokkute mu bëgg waaw bëggul sag yokkute bëggul yokkute keneen waaw nga xam ne moom dafa iñaan daal njariñ daal lépp daa bëgg mu yem ci moom kese moom képp ay jariñu moom képp ay kawe moom képp ay baax kudul mom du bëgg nga tuddu ko du bëgg nga faale ko boko topon ba nga bayiko fi dem ci kenen sax mu mere la kon lu ko mel non moy ko ñaan ko nee ñaan bu kenn def sëriñ kon ngok nee bul def ko seen mu kala rek nga japp nag seen wala rek mu tafi ni kul li man to bu cheikhan fi zaman ah, kon mbir ma nga ca ba ngay wut sëriñ ba ngay wut sëriñ nga wara wut ku baax ku matul sëriñ koo xam boo ko defee sëriñ la ngay séntu cib sëriñ dana la ko defal mooy dana la mat royukaay nga xam day teg tànkam ci saraatum sax jub ci waxam jub ci ay jëfam jub ci pas-pasam jub ci ay jëflanteem jub ci doxalinam ba noppi itam boo àndeek moom mu di la digal lu baax di la tere lu bon dina teg ci yoon wu lay tax a yokku dégg nga eh, xam ne day bëgg day bëgg jariñu bëgg nga nga nga jariñu day bëgg yéen ñaar ñëpp ngeen jariñu ndox itam nit nit ku nekk ànd bu nekk sëriñ bi naa ne ñi lay digal ñett lañ suñ tubaab moo ko wax nee na diglekat ñett lañ ku lay digal ngir bëgg nga jariñu waaye moom du jariñu di la tere ngir bëgg nga mucc waaye moom du loru mu yàlla yàlla rek kay digle ak a tere te ndigal la amu ci intérêt tere ga amu ci lool ak ku lay digal ngir bëgg ngeen bokk jariñu di la tere ngir bëgg ngeen bokk mucc kooku mooy nit ñu baax ñëpp rek ñi ñuy topp ñëpp dañ lay digal ngir bëgg yàgg moom ngeen bokk njariñu di la tere ngir bëgg yàgg moom ngeen bokk mucc ak koo xam ne moom dalay digal ngir bëgg ngir bëgg a jariñu moom kenn di la tere ngir bëgg a mucc moom doomu ko xam daal seen ànd moom si côté am rek lay baaxee waaye sa côté moom daal du ca baax kon bokk euh, ci tànn bi ci ngay ci ngay ci ngay ci ngay ci ngay taxawee seet ki ngay tànn di ko def sëñ bu fekkee dañ laa trompé nag ngay am koo yaakaaroon ne mat na ko ba nga ànd moom gis ne matu ko bàyyi ko nga koy bàyyi dem ci keneen koo xam jàpp nga ne mat na ko waaw loolu rek la jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum wa wa barakatu waaw sëñ Abdou Samad bu di nuyu bu baax di la siyaare la balaq di balaq di nuyu bu baax bu sell bi nga xam ne moom kenn ku ne xam ne liggéey ak lislaam di yàlla yonent bi digle dox ñëpp nañ ko mën a jàpp ndax sëñ Mourtala moom moo la wane moom yëg nekkam bu waay ne rek wan koy bàyyi xel rawatina li nga def sa jàpp sax man ko seet dañuy guy ndax sëñ bi ko digale man nag samay wax daanaka euh, ci diggante soxna yi nii ak xale yu góor yi ndax ñuy samay doom ak samay sa nekk ak kon bu leen fekkee bii su ma leen fekkee bii ah, sañ ab li saman taxawaay taxawaay bi nga xam ni man mi nga xam ne bàyyam nekk na lu yàgg nga xam ci moom lu bare bare moom baax bu mu def rek man naa day tàmbali baax bu fekkee ci bàyyam la roy ndax dëkk bii de li ma ci xam daan nañu fi dimbali ñoo xam ni man fekke naa ko teewe naa ko danaa bàyyi ay ci saa su ci waxtu wane waaw daawul teewul gi bi ñu wuti lay moo leen di bër yëpp lu bari ñaam lay sin bi moo leen ko toppatoo ndax boobu ñu anglais bu baax danaa bàyyi ab taam lépp di ko topp di bàyyi di islam ñoroon ko nag lool lii dañ am daa sama def moom lu mu doon ci waajurum la kon nag yéen bu leen yàlla xamane yéen xale yi soxna yi jigéen ngeen déglu ma tuuti soxna soxna yi ngeen déglu seen maam mu ne ngeen déglu ko da ngay na bàyyi déglu mooy da ngay concentré wu bàyyi lépp na ngay def da ngay di xool am na lu tax ñu andi ku ne daa war a xool ci waajuram lam fexe ba am la yow nga fexe ba am lu mel ni yow loolu ku ko bàyyi ku ne foo ne fu ne doo jaaxle ndax wóor ne kenn ku ne am na am na baay am na am na am na am na yaay boo xoolee sa yaay fu mu jaar ba taxaw la ba nga man di def di dindi xool ay doxinam tànk ci tànk ci tànkam yaa ci tànkam li nga bëgg di nga am kenn ku ne ku la ju ku la waa kuy sa waajur ku ne xam nga mooy sa kilifa waaye bu bu nangu mu gën la gën moom ci jëf rek lay doon te da ngeen a ñëw fii yàlla def na taw na leen yéen waajur taxaw leen ba andi leen fii di leen bëgg leen lu baax yaakaar leen yaakaar jooju nag yéen am jom bëgg lu baax ba yaakaar jooju bañ a tas ndax fii ni koo fi dégg mu baax góor koo fi dégg muy dox di baax ñu wax dara la wa ajurum ji na ko. waajur jigéen la ko jur jigéen bi gën ci àdduna kon nag kenn ku nekk ci soxna yi dama koy wax samay doom ak samay sët kenn ku ne da war a fexe ba am ku ñu naa diw mooy sama moo moo moo moo moo moo seen diw loolu la ñu ne ko jëf moo koy bëgg loolu daw teewu bëgg lu baax seen waajur bëgg nañu lu baax de te fii ngeen nekk bu ngeen góorlu di ngeen lu baax bu ngeen ngeen jaar li ngeen bëgg di ngeen ko am ci lu ngeen sonn ki gën a sonn ci àdduna mooy ki nekkul ci li nga war te bëgg lu baax waaye saa bëggee lu baax ne ci li la war li nga bëgg di nga ko am bu leen nangu mukk seen waajur gën leen am leen jom partout takku ba lii la leen defal ba am ngeen ñëw fii di wax di toog ngeen am lu gën loolu man ngeen ko ndax point bi ngeen am amuñu ko woon ñun de leen daj suñu doom da ko daj ñaawul mu yàlla sama doom daj ndax xam ma jaar fépp mënuma koo wax kenn koo xam ne fekki woo kon loola boo bu sa doom boo sa bàyyi bu sa doom bàyyi xel ci loolu dina am li mu bëgg lan waruñu ko rek dama doon xool samay waajur fi ma jaarlee ak fa ma jaar ba tax ma am naa lu xam ne moom amuñu ko woon waaye fi ma jaarlee tax te loolu nag kuy ndaw ku ne war ngaa bàyyi xel loolu bu dee góor bu dee jigéen ku bëgg lu baax ñu ne lu baax lu baax rek ngay am yàlla moom dencu leen fenn lu baax nga jëf lu baax te delloowul mm-hmm. waaye loo loolu seet si bopp mu la boo xoolee sa jëm lay doon waaye kenn ku ne ci lu baax ku ne di def lu baax kenn mun na ci am lu baax mm-hmm. yàllaa ko bind moom jëlul lu leen mm-hmm. loolu naqari sa bopp def xoolal sa bopp mm-hmm. te fii nii moom lu ngeen amul rek ci yéen la damay wax samay doom ku ci amul lu moo amul yow la waaye boo amee waajur bu baax muy góor muy sa yaay muy sa waay ñu baax loo amul ci yow la loo wuti ne mën nga koo am loo ñàkk bu ko jooy kenn xamal yow la yéen lu ngeen bëgg fi mu te am leen ko rek rawatina yow mi ngeen nekk ci yéen la am leen jom am ngor am fulla am fayda te dëggu sëñ Tuubaa li mu am ci lislaam lépp dëggoo ko may yonent la am ci dëggoo ko may mm. nit day dëggu te pëstéef foo jëm rek di nga am li nga bëgg mm. waaye loolu yof yof di jàpp di bàyyi di jaaxaane ko wane doo dem fenn te loolu kuy dund ku ne bëgg nga jariñu tey ak ëllëg te ku ne ci la nga war doo sol mm-hmm. kon nag man tonte naa loolu bi ma ñëwee fekk fi am saman mii nee naa dëkk bi yàgg naa fi am naa fanweer ak ñett lu bari fekkee na moom sant naa ci yàlla bu baax ndax lu baax rek laa ci xëy si ne doo ko ci laajee te ko ma ci xam nga may xam waaye moom mi gis naa ci moom loo xam ni baa fi nekkee ba tey gisuguma kenn ko fi def daara ji mu sos ci jom ak bëgg lu baax ak fulla ji ba def ko ba taxawal fii bis moo ko fi def moo tax ma teg ko fi ma ko ma ko te yàlla rek tax waaw kon nag góorgóorlu yéen am ngeen lu jafe na ngeen góorgóorlu ak takkuwaat te xam lu ngeen bëgg mën ngeen ko am waaye nag lu loo lu luy forde da ngay laxasu xool ca loola bañ a xool leneen bëgg loolu loolu te mu déggu ci yow loolu laa di yéen soxna yéen nag sama sama xale yu góor yi ah, li ma leen di digal nun ànd tax nu am lii nu am Ablaye Thiam tey Ablaye Thiam wax na ko léegi jàmbaar la ndax liggéey suñ buñ ko tàmbalee ba tey fu ñu géeru mu ngi sunu kaamil sunu wér nag ñu ànd nag moom mboolem dëkk bi ci bari nga xam ne ay politique yëpp moo ko daan féetu ko topp topp ba ñu ballu ji yëpp luñ ci def moo ko daan bàyyi ak di ko def loolu maa ko rek am naa ko waaye li mu bëgg ngeen xam ko yéen ndaw ñi ñun kat suñu jàng wàcc suñu daan wàcc li li li suñu daan wàcc li suñu motulaa a bëgg ci àdduna noo ko def kër gii mu noonu ba mu ko ñëwee waax ñu dama bëgg ngeen taxawal bëgg rek lislaam ngeen waa dëkk bi yëpp daayira bu ñu nekk ku ci nekk comme li sëñ euh, Afia wax booloo leen te ànd te yàlla tax ngeen def mbooloo bu muy benn mbooloo ngay def bu nekk na nga nekk ca nga nekk te ngeen def benn mbooloo àndandoo yëkkatandoo tërandoo taxawal ma kër yi lislaam boo xam ne daf fi nekk ñoom ñoo lislaam ba baat muy bëgg nu nekk jaayante daw ba dégg ci fële nu jaar ba àgg yi kër ga def ko ci loxoom keroog dafa keroog def mu nekk sëñ Moussa boo xam dafa mun ba yaa ngi def kanam li mu def dara di kanam ñu ne bëgg lépp de am naa lii rek laa soxla woon ndax dëkk bi day dëkk lislaam dëkk boo xam ni day noonu lislaam te kër gi dafa nekk jàppoon lislaam kon nag bu la yàlla dimbalee ngeen ñëw ba di ay ndaw di bëgg lu baax di góorgóorlu ci lu baax góorgóorlu leen ci kër gi lu ko ëpp ñooy ci àdduna si ñu toll ci góorgóorlu te lu ci waay def wala seen tubaab yi dakkal dakkal ndax te lu seen tubaab yi ko tubaab def dara dara wala ko lislaam te réew mi ko taxaw na daal yaa ngi liggéey yàlla yaa ngi ngi def ñoo xam ne lislaam rek ko wax ñoom seen tubaab doxam yëpp lislaam la kon nag loolu ci liggéey bi la bokk sëñ Abdourahmane mi mi ngi taxaw di ci soññee guddeeg bëccëg bay sax 1000 dollars ndaw lu ci ne ba ci yow ànd ak moom dafa tax ba ñëw tey ndax dafa ne am na xale yoo xam ne dañoo bëri seen bopp ànd ñëw bëgg a liggéey góorgóorlu taxaw kon nag yéen dama leen dama sant kontaan ci yéen ndax ku ñu di jëm seen tubaab ba ànd noo te yàlla tax ci liggéey bi jaayante yàlla ngeen bëgg yëpp ngeen ko am kon naa ko wax ci sa bopp waaw kon nag loolu rek ma fa ma fekk na góor yi fekk naa leen fi ndax lu baax leen tax a ñëw waaye su ngeen àndandoo góorgóorlu te yàlla rek tax ngeen taxaw jël seen kanam bu ngeen defee tuwaay leen bu fekk bu ngeen jëm seen tuwaay leen di kar man nag dinaa am lu ma dolli tuuti ci li sëñ bi doon waare ci jigéen ci sëy dinaa euh, ci am lu ma ci dolli lu ma ci xam lu mu wér lu ma ci xam bu baax man ñaar fukki laa am jabar kon li may wax lu ma xam la teel a ci jigéen jigéen sëy yëpp ñaar fukki la sëyu jigéen lu mu metti metti ñaar fukki la euh, doomu man ko jariñ kon teel a lu am njariñ la ndax njaboot dina la dimbali ci lu bari ku la ëpp njaboot rek moo la gën a euh, euh, am féetewuwaay teel a sëy am na njariñ lool lool lool lool li li mu wax na moom wax na ko ba pare waaye yéen itam da xam ne jigéen moom bu tollee ña dix-huit ans war naa mën a am jëkk doom boo amee borom kër am doomam balaay am ñaari fukki at ci kanam doom ji dina ko jariñ dina ko mën a jariñ bu baax a baax loolu nag laay dolli ci teel sëy la am njaboot baax na lool ci jigéen moo gën nekk ba nekk mag di soog am njariñ te doo ko mën a dimbale doo mën a dimbale seen njaboot euh, li may wo li tax ma ñëw fii nag tey sëñ Abdou Samad xam naa ne yéen a ngi ci liggéey bi bu baax ci liggéeyu kër sëñ Tuubaa moo ñuy yëkkati ndax fi ne nag luy jot jot na ah, jàmbaar lañu woon amoon na ay jamono bi sëñ bi di wax kër lislaam gi ñu taxawal ko demoon nañu ba kër yi amoon nañu ko li ci waroon lépp defoon nañu ko waaye dañoo dem ba ñun dañu natt woon dañoo natt woon ne xaj na duñu fi yàgg dañu woon fii duñu fi yàgg kon suñu amee lu toll nii rek kon baax na ndekete yoo waaw ah, dinañ ko dem ba njaboot dab ñoom waaw ah, defaroon nañ kër gi ba mu baax lool toll woon suñ jamono toll woon na noonu ah, waaye fi ñu toll nii bi ne dañ koy defaraat yàkkale ko ci kaw ndigal itam mu bëggoon lu baax yàkkale ko xaj na natt moo demee noonu booba léegi ñu ngi ci waaye comme fi mu ne nii dem nañu ba architecte beeg ingénieur beeg ñëpp taxaw nañ ne kër gi léegi Eh, sonn nañ ci lool waaye xaalis su koy defar ndax trois millions de dollars lu bari la sosu nañu nit ñi daal ñu sosu eh, waaye sos yi fi muy day bëgg a néew te architecte bi mu ñuy bëgg a dab muy ki tabax kër gi ndax fi mu nekk nii moom feeg weer rek dinañu mën a jox fu ñu mën a jullee juma waaye nag six cent et quelques mille dollars war nañu teg war nañ ko teg ci kaw ji ndax moom fi mu ne loolu la ñu soxla pour mu joxnu fu ñu julle juma ci kaw loolu nag ci laa ànd ak sëñ abib Diom ak turu Mika gépp ma ne dinaa wër xale yi fu xale nekk nag fu xale yi mën a nekk nag lu ñu mën a andi rek ñu dajale ko ndax xale yi mën nañ fi ñaari junni xale ha ah, ci dëkk bi mën nañu ñaari junni xale sama xalaat mooy xale bu ne feebar bu dee bu joxe woo mille deux cent dollars rek. dinañu am lu ñu mën a jox architecte bi man loolu mooy sama xalaat xam naa nag sosu woon ngeen mille dollars waaye fi mu nekk nii mille dollars yooyu ñu sosu néew na lool lool lool lool nit ñi am la ñuy yéene waaye nañu ko joxe. waaw waaye nag bu fekkee ne am nañu ñaari junni xale ci dëkk bi xale bu nekk joxe deux cent dollars waaw dinañu mën a dab architecte bi te deux cent dollars yomb na. Mm. lool oyof na lool itam loolu moom moo tax ma bëgg a tàggat xale yëpp. fu xale nekk nag ak fu daayira nekk ak fu mbootaayi nekk ñu taxaw fa soññu leen ci liggéeyu ko sëñ Tuubaa yi xam naa nag Abdou Samane moom soññoo woon nag groupe am bii ñu joxe mille dollars waaye nag six cent mille dollars trois millions moo bari kon fi mu nekk nii moo tax may soñee ak Habib Diom ak Meka gépp mm. fu nit nekk fu daayira nekk fu xale nekk te mën a joxe deux cent dollars feeñ weer buy dee Eh, bu ñu tàggatee ñaari junni xale xale yi am nañu ay internet am na ñu ay website am nañu ko bureau nu ñu communiquer TikTok yeeg yëpp xale yi am nañ ko ñun mag ñi amuñu ko. te buñ ko defee soññu ko xale yi xale yi dinañ ko génne loolu moo doon son soññuy tànk loolu mooy li ñu doon wax loolu mooy lu mu fi yëkkati ngeen jéggal. maman nga jéggi daaw loo pax ndax ah. Ah, sëñ Pape Dramé ñoo ànd waaye ñoo war na ànd waaye ah, daayira bi dañoo war a daje tey Mika dañoo war a daje. man nag commission bi laaj xaalis maa ko jiite Ablaye Sam mi ak ñoom Moudou Fall Baye Fall ñoom ñu nga foofa moo tax Pape ni ma léegi na nga ñëw fii teewalin fii ñoom ñu teew foofa ñu nga foofa war daje foofa sëñ Abdou Samad loolu moo tax ne Pape mën naa ñëw pour comme gis na liggéey bi ngay def taxawaay taxawaay bi nga am xale yi gis nañu seen taxawaay ak seen yoon comme ni ko Ablaye waxee rek fi mu daal moom itte yëpp muy kër gi sëñ Abdou Samad daaw yëm baneen mi ngi koy wax lu ne bëgg na ko cee taxaw kon nag koo xam ne ndaw nga di ñëw fii di ànd ci loolu kontaan nañ sëñ Abdoulaye comme ni ñu ko waxee mboolem fu ndaw yi ne ci dëkk bi daal mun ko mënee dinañ la gën a soññ ñu taxaw àndandoo loolu sëñ Abdou Samad mii ne moom ndaw loo xamante ni bi jox nga ko la nga koy joxe dina ko andi foofu loolu daal la doon fàttali ci turu Mika gépp gépp ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm loolu laa wax sama doom wax ci sàng ci sëriñ yi dama lay ba am lu ma leer ci sëriñ maanaam man sëñ Mor Faasa Baaxu mooy sama sëriñ balaa doon tërbiyewu boo gisee sëriñ mu mat sëriñ ah, kenn ku ne bëgg ko yàlla la ko yàlla defal nga am ko waaye man ba ñuy uh, denc daara gi dañ daan dem ci daara ji yalwaan wàcc boo yalwaan di ñëw am na bis boo xam ne wàcc nañ di yalwaan diggante ñaari dëkk yi doon daje ku ñu wax Njoogu Faal bu fekkante yi ne ko dana génn génn nañu ci guddi di ñëw jaan gi benn njàngur moo xam li mu toll kenn mu ko mu toog tànk bee laxasu ba ci weyu tànk yi boo ko defee mu te koo mat ñuy doo bu bugg ci biir kër gi ñaan ji mënu koo mat te booba ci daara ji lañu nekk ko loolu xam nga kooku sëñ ñëpp taxaw ba mu agsi ba léegi sëñ bi xanaa seen guddig bi gi jaaxal na leen te fekkewu ko moom koy wax ak yeneen ak yeneen moo tax sëñ bu mbëg sëñ dina yóbbu moo tax ànd ànd ak ku lay ci yàlla loolu moo moo jafe waaye fii mu amee sëñ mbëg sëñ dalay yóbbu te doo ko yëg loolu nag nag laa doon ci loolu jërëjëf waaw ci li ma ciy dolli mooy eh, li ma waroon a njëkkee dama koy mujje muy sëñ Abdou Samad li nga ci wax ci waajuram taxawaay bi mu taxawoon ci communauté bi euh, keroog bi association bi bëggee dajale nit ñi mu ñu am carte d'identité machine ba papa moom moo ko indi euh, mu ñu li ñuy defaree carte d'identité ci la dem ba miikaay itam ah, mu jox leen benn bu mel noonu ci lu ma fekkee ñuy dem ba ci yàgg ah, ñam de semaine nii bi fi ñëwee mu présenté ñu ko xamal ñu ne kii kat àllasaar la jaare da taal yëpp àllasaar la kon kon euh, ndigalul àllasaar boobu ak tànk àllasaar mooy euh, jóge ci dem ci jóge ci daara dem ci daara kon li ngeen di wax ci sëñ li wax ci sëriñ hmm. euh, ñun moom wan nañu wax ne sëñ Mourtala laa joxe exemple ci li ngeen di wax ci sëriñ bu mat sëriñ ndax bi ñu fiy ñëw ñun ñëwuñu jëfi ndax murit lañu andiwuñu fi man Murid andiwuma fi Tijaan andiwuma fi dama fi ñëw en tant que Ablaye Thiam man sama métier war a ñëw Amérique ñëw Amérique di ñaw si loolu laa fi ñëwee waaye dama fi ñëw nag àndaale bi sama Murid nag eh, complexe itam taxul ma boo dugal ko sama bopp dama dindi complexe tubaab bi dañ ma daan yëre bi ma njëkk a sol tubaab bi dañ ma doon ndax xii yëre funaanukaale mu ne déedéet dem na man ci boppam dem naa ba deen ko ñëwal ñu di ko sol complexe lu ci am sa lu am lu amul solo nañ dindi complexe bi euh, sëñ Mourtala ñëw bi muy ñëw fii wax dëgg yàlla daf ñu teg ci yoon ndax ci la am marché bi ñuy def nii di Bamba dee ñu am bàll ji taxawal ko sëñ Mourtala ku ma saa ñëw sax doo xam danaan dox ba waaye dama nañ dem cee dox ba wala bi tugg tudd yàlla baatub laa ilaha illallah boobu mu ne ni lañ koy nañ leen koy wax ñu di ko wax muy marché bi ñuy wax nii ci bàmba dee rawatee it mu ne wut leen fi këru lislaam mu bañ ba ñu ko waxee moo ci jiitu daal ci dugal xaalisam wax dëgg yàlla wax dëgg loolu ci ko lu am la waaw teg ñu ci woon wi tam am na yu bëri yoo xam ne man mi fekke naa ko ci lu mu def ci loo xam ne yokk yoon wi la yokk lislaam la won ñu ne lislaam nii la war a doxee yu bëree bëri kon sëriñ bu mat sëriñ am na xaj na nag am na ñoo xam ne dañuy tuddoo sëriñ te duñu sëriñ tuddoo sëriñ te dama too ko am na waaye nag ñun li ñuy xool rek mooy eh, suñu kilifa yi ñu am ndax dégg naa sàng ñu naan eh, murit la wala nangam man man naa cee wax lu bëree bari la xam ne du ma ko dépendre ci benn kilifa fu ma jaar ak sëñ Tuubaa laa wax fu ma jaar ak moom ndax fa laa yaroo sëñ Cheikh Ba laa ma yaroo ak ñoom soxna May ak ñoom seen Fall ak ñoom sëñ Bisiru foofu laa yaroo am na yu bari yoo xam ne eh, gisal naa ko sama bopp ci lu ma séntu waa ja defal ci kàttanu yàlla ak yonentam eh, kon sëriñ bu ma sëriñ am na nit itam li nga gëm sagam boo demee Inde am na ñoo xam ne ay nag lañuy jaamu lu ñaan ci nag yooyu yàlla jaarale leen foofu ñeneen ñi tam noonu am ñoo xam ne lu ne la ñuy jaam kenn ku ne li nga gëm daal na ko gëm te muy dëgg ci yow euh, te bañ a wor euh, bañ a fenn li nga nit ki bu la matee sëriñ moom dina la jaarale la fu bari ko ku am sëriñ ku ne da nga xam ne am nga sëriñ ku amul sëriñ ku ne da nga xam ne amul sëriñ euh, dama gëmoon sax na man sama gëm-gëmu sëriñ tax na ci fi ma jaar ak sëriñ Tuubaa avant moo doon dem màkk jafe woon na trop ndax bëgg woon foo na dem ndax dama yaakaaroon ne waruma dem màkk bàyyi Sénégal ñuy xiif wala mar wala rafle ba billet màkk yi bi ma masaam rek dama ko jox ay nit finalement finalement it yàlla dogal ma dem ba njaboot màgg man ma yóbbu màkk ma demal sa man daal dinaa dem bi yoon moom dinaa dem bi ma demee it ah, dama li ma gëm laa fa taxawal ah, fu ñu ñu bari dem nañ màkk nag ba taay nag ñu bari dem nañ màkk ba taay waaye man xam naa ne sama dem gu màkk moom am na njëriñ ndax fu ñu war a taxaw taxaw naa fa lu ñu war a gis gis naa ko lu ñu war a xam-xam naa ko fu ñu ne du fa nit yi dem di fexe naa ba dugg fa kon ah, nit daal li mu gëm danga koy gëm ah, te fonk ay waajur sëriñ lu am solo la lool lool lool lool boo toppee li la sëriñ digal rek di nga am solo bi ci des Abdou Samad mi ñuy wax nii ci daara yi bi mu ubbee daara ji ak léegi daf may jox man xaalis yu bëri yu jaar sama loxo ci dimbali ay nit xam ne dafay yëkkati xaay bu bari teg ko sama loxo ne ma joxal ma ko néew ji doole yi joxal ma ko ñi am jafe-jafe muy jaar sama loxo loolu kon bu nit ñi dee toog wala ñu toog moo lu mel nii war naa di ko leeral nit ñi ah muy loo xam ne mosuma ko gis mosul am nag walla boog lu jaar sama loxo laay wax de xaw ma keneen waaye ci Abdou sama mii laa gis muy ndaw loo xam ne dina jaar la xaalis yu bëree baree ba sama loxo pour di di dimbale ay nit kon loolu euh, sëñ bi maa ngi leen koy teewal di ko sant di leen ko xamal ci loolu pour ngeen xam ko di ko ñaanal yàlla mu gudd fan ak wér loolu ñaan yi daara ji yokk ba nekk ay daare daare daara daara ba nekk sax ay université yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def euh, li ñuy yëkkati woon tey rek mooy affaire kër sëñ Tuubaa gi bëgg ndaw yëpp dugg ci seen loxo ñëpp dafa mat yéen a ngi ci woon waaye dañuy gën a ñaax rek ndax xale yi am nañu façon laajin bu ne waaw ñun mag ñi la ñuy laaja rajo yooyu waaye xale yi am nañu façon laajin yu bëri yoo xam ne buñ ko laajee rek li ñu bëgg mën naa am bamba dee bi mi ngi ñëw tey ma bëgg marché bii di ñëw di bamba dee bi eh, daara ji takku beneen takku boo xam ne xale yi mën nañoo sol seen yëre yu rawet mën nañu am nañu àndee mën nañu yor seen kii ñu ànd ñëw jiitu ca kanam ah si kër ni ko sëñ Murtala waxoon baatab laa ilaaha illallaah boobu ñu gën ko dëggal gën ko saxal ndax def nañ lu bare nag ci réew mi ah ndax bu sëñ Murtala ñëwuloon fii bañ fii laata ñëw booba jàkkee fi am bariwul bari bariwul booba Brooklyn na fi am parquet yi ñu doon ci parquet sax lañ daan julli Habib Diome xam ne li ma doon wax nii waaw bi sëñ Murtala taxee taxawee di ñëw jàkkee yi bari na lool waaw foo léegi foo dégg jàng fay dafa jàkk mm. koñ bu ne mu ngi fay dugal jàkk te boobu jàkk yi bariwuloon booba jàkkee nekk ni yor ki gii mu dugul yi juróom ci yu ñu xam waaye léegi nag wax dëgg yàlla ah, bi ma mujjee laaj aw cité bi New York nee nañ ma mille sept cent cinquante jàkka ñoo nekk New York City te ñu ñu fi ñëw ay juróomi jàkka bi ne kon ah, lislaam am na solo ñëw sëñ Moutalla bi am na fi ah, jàng xasaay di fi jàng baatub laay laay la bi ñuy laay am na solo lool xale yi nag bu ngeen ba taxawal ay daara lu mel nii kon ñun dañ ci xam ne Euh, garab gi ku ko ji garab gi ku ko ji du ci lekk ndax meññeen bi bu du fa la gaaw a fekk waaye ñun meññ bi dañu daf ñu fay fekk kon nag góor góor leen bu baax a baax yéen kenn ci yéen ku ne bokk ci daara ji war gaa mën a taxawal sa daaray bopp ah mu nekk mu nekkal ay daaray daara kon jël ngeen jëf ngeen jéggal ma wasalaam am na solo comme que jot na rek jàppoon nañ ne waxtu wi di ñu fekk waaye jotaay benn toll ndax ñu fi dajee dafa dajee day seeni jëmm dafa am solo waaye tamit ñëpp di boroomi xam-xam ku nekk xam na ne Baye Habib kàddu yi mu jottali ko am na solo te mënta woon a ñàkk nekk noonu it suñu papa Ablaye Thiam tey xam naa ne buñ continué woo it am na ñeneen ñoo xam ne euh, mën nañoo wax lu ni mel wala sax lu gën a kii donte macha allah waaye daal xam naa ne kon foofu lañ koy yëkkatee sëñ Afe ñu ngi lay sant bu baax euh, alhamdulilah tey ñaan lii euh, yàlla na sax yàlla na yàgg yàlla nañ ko gën a man ñun ñëpp yàgg koo fekke ay ati at euh, ci barkeb alquran al karim li si ñuy bàyyi di laaj tey it wax dëgg yàlla koo xam ne yaa ngi fi te woo woon ci 1000 dollars yooyu ñu doon laaj tamit 200 dollars it bëriwul ku mën a boole ñaar yëpp it incha allah day gën rek. ndax yàlla moom loo gën di man di def rek mu lay gën di fay te yàlla du fay ku liggéeyut ku liggéey dong lay fay te it euh, wa ma anfaqtum min shay'in wa huwa lépp loo xam ne def nga ko ci lu baax rek yàlla moo la koy wottalal lu gën fopp te it euh, maanaam maa naqasa maalun min sadaqa li ngay jël di ko def ci yoonu yàlla du wàññi mukk sa alal euh, te it loolu ñi nga xam ne ñoo ko ñoo koy dund xam nañ ko kon nag euh, euh, for du force du force ci kenn waaye def lu baax moom dafa bokk ci li nga xam ne lu mënta ñàkk la rawatina jamono yii nga xam ne ci lañ toll te ku nekk xam ne ne euh, kër sëñ Tuubaa gi moom lu mënta ñàkk la moom comme que lu mënta ñàkk la nag nañ si daan soññee rek noonu lañ ciy solle soññee ba tax na maa ngi leen di soññ sama kàddu maa ngi leen di soññ it ci samay jëf waaw di leen soññ it ci samay jëf ndax wax dëgg yàlla waxuma ko ngir damu waxuma ko ngir bàkku dama koy sante yàlla mm-hmm. waaye ba ma dikkee ci dëkk bi ba tey lépp dama fi ma sa fekkee ñu laaj ko jëmee ci kër Sëñ Tuubaa gi mm-hmm. yàlla dogal na def naa ko liñ ca dolli it dolli naa ko ca mm-hmm. te it mosuma leb di sa dugal dara waaw boobaak léegi mosuma leb di ca dugal te amee lu ma kenn bor fii ma toog te yàlla suturaal na ma fi mu ne nii ren damaa waajoon ba waroon a dem penku waaye ay jafe-jafe am ci kon loolu lépp dama koy sante yàlla rek dama koy sante yàlla ah dama koy sante yàlla bu baax a baax ba tax na it maa ngi leen di soññu yéen rek ci yoon woowu nga xam ne ci lañ nekkoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh beneen yoon bismillah kon ñu julli ci